abonné le vous ci sa chaîne bii di ASG production gi jot bépp xibaar bàyyi ko ci yoonu murit wàllu ko rawhane gi dafa manki loolu lu am solo la ñu laaj ko amna ben xale ben xale bu bind seigne muntaha lettre diko wax ne ko man dama jess ña daan tarbiyew bu jëkk ku ci masaan tarbiyawu ba wàcc dañuy gis ci yow lu ñuy xeemeem benn muy wàllug àdduna wala wàllug diine ma gis jamono bii nu toll nit dana tarbiyawu ba wàcc doo gis dara ci moom doo xeemeem dara ci ci wàllug diineem bu lee ci wàllug àdduna boo ko gisee da nga koy yéene ab sarax may laaj ba xam ndax li fi nekkoon dafay nekkatul <laughs> daanaka mooy di am na xale bu ko laaj sëñ Muntaxa ci tontu li ko sëñ dañu ko léegi yàlla bi muy bind jaam ñi da leen a bind ngir ñu jaamu ko loolu moo taxoon mu tànn ay yonente yónni leen yonente ñooy dox bi ci sunu yonente bu mujj bii léegi yonente bu mujj bii bi mu wotee loolu yi moo dox ba agsi ji loxoy Serigne Touba Serigne Touba bi mu ko jëlee moom itam wane ko ñi ko jëkk a topp bëgg a jaamu yàlla tax ñu ñëw topp si ko ñoom ba ñuy jóg dañoo xamoon li leen tax a jóg ka xam li ko tax a jóg nag bi mu ñëwee dina ko wut ni mu ko war a wute bi mu ko wutee ni mu ko war a wute leer googu yi mooy nekk ñoom ba bu ñu génnee ku leen gis jëmmi Sëriñ Tuubaa lay gis si ñoom loolu moo waral résultat yi ñu daan gis dañu tuddee ak ceex du caagee sëriñ bi moo daan bind ci loxoom di wax ni kenn seexal na la mm-hmm. jël Serigne Touba dund ko ba fu mu génn nit ñi gis ci moom jëmmi Serigne Touba ñu topp loolu moo daan andi résultat mooy ñi ko daan wut dañoo xam li ñuy wut wute ko nañ ko war a wute. mu ne nag jamono bi ñu toll jamono bi ñu toll li fi mooy mag ñu amoon Pastef seeni doom des fi ñu nàmputal leen Pastef boobee waaye xam la leen tax a jóg nag defuñ ko te nit ki li ko tax a jóg bu ko xamul du ko wuti na mu ko war a wuti te mbir mi boo ko wuti wut na nga ko war a wuti doo ci am résultat ba nga ci waral. daal lii ma waral gone léegi yi ginnaaw nga xamante ne léegi ñoom maanaam seen i baay ak seen i maam leen ci nàmpatal képp ñu di ko def waaye xaqiiqa la leen tax a ko loolu moo waral ngir ñu mën cee am résultat yu mel ni yem ak ñi daan am du yomb du yomb wax la mm-hmm. la ca des nag mooy mooy sa xel dal sëñ Tuubaa moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer